Je suis un, je suis un policier à la retraite, en même temps conseiller municipal de SICAP. Nous tey en tant que représentant des retraités de, de la police pour, pour soutenir Zahre, Madame le ministre Zahra Iratiam. Parce que xam nous ni actuellement, du nous devons elle est la meilleure profil pour pouvoir diriger les SICAP. nu nu nu gis clé bi ci affaire am ci mun nu jox nu liir ko mu doon lu nekk complet moo tax man sax ñàkkumoon ci parti mais dama jóge si parti ñëw pour ma ànd ak moom parce que xam na ne actuellement incha allah di koy ñaanal di koy ñaanal di koy ñaanal mu gañee Sicap te buñ ko gaj buñ ko jàppale ba mu gañee Sicap suñu bopp lañ ko defal parce que il est il est la meilleure profil pour pouvoir diriger les Sicap joxe seen conseil yaakaar nañ si moom mu jàppale nu ñun les personnes âgées nga xam ne ñu actuellement ba léegi ñun ñoo yore kër yi parce que xam nga léegi xale yi liggéeyuñu tax te te liggéey dafa jafe te ñun ba léegi ñoo ñoo koy gérer fu ñu jàppale en sunu santé yëpp gis nañ ko si projet yi ak sécurité bi ah ak ak sécurité bi ak aussi environnement bi. loolu daal SICAP soxla na ko quoi environnement soxla nañ ko sécurité bi soxla nañ ko jàppale les personnes âgées jàppale aussi xale yi parce que xale yi aussi ñoom ñooy avenir te vraiment SICAP bari na ay xale yoo xam ni defuñu dara ñu ñooy sunu ay doom sunu ay sët te si ñun la ñu yaakaar te yaakaar boobu nu yaakaar moo tax bul bul leen ne leen fii jaar leen fii pour ëllëg seen affaire mën a xale yi daan def te daan nu ko defal moo tax te yaakaar te nañ ko si moom mii du fait moo doon ministre de l'action sociale te dëkk suñu gox nekk ñun ah bala ngay dàq fenn jàq mu jëkk ñëw si yow te am na nañu yaakaar si moom incha allah te yàlla na ko yàlla defal. waaw d'abord ñi ngi rafetlu élan bi nga xam ne moo am au niveau des populations sikapoises ndaxte secteur boo laal rek les gens viennent pour témoigner de leur solidarité de leur accompagnement euh, ci dynamique bi nga xam ne moom la Benno Bokk Yaakaar porté mais surtout ci euh, attentes yi ñu am te loolu moo ëpp solo ndax nit ki boo demee bay wut ba tànk du caageen ne rek da nga ko war a am pour am ko mais li ci ëpp solo mooy boo ko amee di nit ñi di xaar ci yow nga mën ko def te li tax euh, soutien yi manifestation de soutien yi baax daf ñuy permettre aussi ñi nga xam ne ñoom la ñu war a liggéeyal ëllëg ñoom la ñu war a jagleel ay politique ñu mën a xam yan mooy seen préoccupation te dégg nañ bu baax li mu wax may re ma koy remercier di remercier waale euh, personne euh, retraité policier yi nga xam ne moom la représenté représenté les sages ci wàllu wér-gi-yaram bi nga xam ne wax nañ ko prise en charge bi médicale bi également ci euh, préoccupation jeunes yi te loolu yëpp euh, nekk autour de l'employabilité maintenant nag am na beneen question boo xam ne suñu sage yi fi au niveau de Liberté abordé nañ ko parce que nee nañ ñu d'habitude bu ñuy wax ci sage rek dañuy wax ci seen santé mais ñoom tamit bëgg nañ entreprendre soxla nañu financement xam naa loolu également dañuy xool rek nuñ koy defee ba nga xam ne euh, loolu day wane ne mm-hmm. euh, c'est toutes les populations maintenant qui sont engagées dans le développement et qui veulent mieux et plus mieux et plus nag ce sera notre défi lorsque nous serons portés à la tête de la commune inchallah merci <laughs>

seen doom a ngi na ko fal tabal ko diis yokku doole bi Sara Yann Thiam Sara Yann centre commercial Liberté 6 extension Baraka euh, di nuyu ñëpp ñi fi teew euh, di beral nuyoo euh, di beral nuyoo Zahra Iyane Thiam futur maire Liberté 6 hectares Liberté 6 euh, di ko ñaanal yàlla di ko ñaanal yàlla li mu bëgg ci xolam yàlla na ko yàlla defal te mu doon lu ko jig di ko ne nag merci si turu marché bi ndaxte amoon nañ fi ñeenti leket ya nga xam ne depuis nañu ñeenti leket ya nga xam ne depuis ba ñu commencé wax waxu leket yi moo may woo moo may nemmeeku moom mooy xool fi leket yu toll ba financement yi jot nañu ñaari leket bu ne cinq cent mille mu des ñaari leket mais loolu yëpp loolu yëpp dama leen bëgg a wax rek man awma si benn coono liggéey bi yëpp moom moo ko defal boppam te nit bu la joxee ndekki bu la diggee añ foog naa ne di nga di nga ko gëm ndaxte mayuma benn yoon ma jaabante minute bu ne mooy woote téléphone laajte fu mu toll woote waat côté bee di woote côté bii di woote côté bee moom moo ko doon defal yëpp te mënoon na ne kilifa laa mu yónni kenn mu defal ko ko moom moo ko defal boppam. nit nag bu la defalee lu baax bu àdduna bi taxawee nu nga ko yuuxu ca kaw te dama bugg yuuxu ca kaw ne jox na nu cër respecté na nit tuutil na boppam te loolu nit rek ay mel noonu li li mu waxoon ak man amul dërëm bu si toj te moo ko toppal boppam bu ko neexoon muy yónnee te yónneewu moom mii moo ko toppal boppam kon nag mënuñu def dara lu di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla li mu bëgg si xolam mu defal ko ko te mu doon lu ko jig di ko ñaanal yàlla mu may ko wër ak wërle ak ñëpp ñi mu àndal nag képp ku ñëw si ay tànku jàmm yàlla na nga ñibbi ay yàlla na nga ñibbi si jàmm ak salaam te seen tànk yi ngeen dox yàlla na doon yiwu kese kese kese kese kese waaw bu ñu ko falee mu nekk maire li ñuy xaar si moom ak li ñu namm si moom yaakaar naa ne yàgg na see gëstu te mu ngi siy dox dañ koy bamtuwaat rek waaye loxoom yàgg na si xeexu marché bi si ñuy njëkk bokk si xeexu marché bi la bokk ndaxte su ma ne am na ku mokkal dossier marché bi Zahra Iyane Thiam bii la. daf ñu laaj dossier ne dam leen damay xeex ànd ak yéen waaye mënuma ñëw ndaxte su ma ñëwee dañuy ne politique la kon moom yoo xam mi ngi si marché bi yaakaar naa ne du moom moo ñuy toroxal kon nag yéen waa marché bi Zahra ngi nii yéen a ngi nii Zahra ngi nii yéen a ngi nii li ci des duma ko àggali de ku ne magu boppam la ku ne magu boppam la xam nga li xew lépp wax nañ la ko waxaat la ko waxaat la ko nee naa leen bii passé ba mu fi ñëwee amoon nañ fi délégué bu góor sonnoon man leen ñu sonnoon loolu bañ ko joxee délégué bu jigéen bi si lañ noppalu ko ma waxaat leen ni ñu am maire bu góor mu ñuy bëgg a rey <laughs> nañu mos di yéen <laughs> loolu laa leen waxoon ah mu mel ne que tamit teraanga du tuuti te nit ku la yàqal booli boo ko fayul booli mun ko waxal booli yaakaar naa ni teraanga gii mu fi def moo ko fi njëkk def kon yaakaar naa ni ku leen defal teraanga ngeen war koo delloo teraanga surtout yéen jigéen ñi ñun góor ñi gisaguñu suñu bopp. nangu <laughs> laa tudd di jaay fii nekk jaaykat ci marché bi depuis des années représenté fi nag les femmes de l'APR ma représenté fi femme de l'APR fii ci marché bi nag di liggéey ñun kenn ñoruñu lu mooy Macky Sall li ko sama doom jooju wax léegi rek ñàkki Sall doo nga ñu ñor moo tax kum fi teg kooku la ñuy àndal boobu ba léegi du guddi du bëccëg ñu ngi daw ci Zahra Iyane Thiam di ko liggéeyal nag di wut mu avancé moom tamit mu jàpp ci liggéey bi bu baax jàpp ci bu baax ci côté bu nekk bu ñu bu ñu jàqee Zahra la ñu gis Zahra tëjul ay bureau tëjul ay buntam tëjul téléphone am boo ko woowee jot ko boo demee mu recevoir la ñu koy sant di ko gërëm man nag comme man maa nekkoon di wër ci biir marché bi waa marché bi dañ ma yóbbante nee nañ suñu marché bii ku ko bàyyil sàmmal ñu ko ñu sàmm la jàpp la ñoom ñëpp nee nañ marché bi on y touche pas nee nañ yow lañu ñu àndal suba ak ngoon incha allah. asalaamaaleykum waa marché Liberté 6 extension Baraka maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam di am mbégte di teewaat fii ndax du ci campagne bi lañ fi ñëw ñëw nañ fi avant campagne bi toog séq waxtaan keroog bi ma fi ñëwee mu am laaj yi ngeen ma laaj mën naa ne sax benn laaj ngeen ma laaj ndax loolu moo leen ñoroon bi ma fi ñëwee dangeen ngeen ma ne nit ñi ñëw nañ fi nañu buñ la jàppalee nga doon maire di nga toj marché bi loolu lañ fi wax si woon waaye ndokk bi ñu xamee ne walla ndokk bi ngeen xamee yéen mën a ràññee mën a seet mën a seetantal loolu nag maa ngi leen koy sante yéen marché bi mais maa ngi koy sante seen délégué yi maa ngi sant délégué Rose ak Lamine ak suñu camarade Astou ak suñu suñu yaay yi nag ñoom mama liika ñoom ñëpp ñi ngi fi ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne marché Liberté 6 extension bi dafa am importance ci biir commune bi ndax commune bi booy seet ñaari marché lañu am marché bi ak marché Liberté 6A yeneen yëpp ay marché yu ndaw ndawaan la ñu am kon ñun fii la ñuy duggee ci marché yi li ñuy bëgg ci marché yi mooy mu am environnement bu set mu am environnement bu baax mu am place yu baax ndax bu ñuy jëndi du ñu dem Kermel duñu dem Sandaga du ñu dem Tilleen du dem Fass fii la ñuy dugg see biir Liberté kon dañuy defar environnement marché yi xalaatuñu xalaatuñu ñëw di toj marché bi ndax fii ay borom kër ñoo fi li ñu xalaat mooy seet képp ku fi ñëw pour am sam xëy am loo suturloo yàgg sa njaboot nga fekk fi environnement sécurisé nga fekk fi anam yoo xam ne nit ñi dinañ ñëw dem dikk te du am benn problème te loolu loolu dinañ ko def ci marché yi mais dinañ ko def ci yeneen secteurs yi ndax commune bi ñuy yootu bëgg pal taxul ñu yootu ko ndax bu doon bëgg pal rek soo xasee ba am ndomba tànk nga mën ci yem waaye da fii la ñuy yeewoo fii lañu am suñu ay wayjur fii la ñu ne suñu ay njaboot fii la ñu ne fii la ñu dëkk kon li fi ne ñun ñoo koy defar ñooy dugal ci suñu loxo pour environnement bi mën a jaar yoon santé bi mën a jaar yoon éducation bi mën a jaar yoon rawatina nag bi nga xamee ne président Macky Sall may wax ne campagne bi yëpp bi mu tàmbaleek léegi président Macky Sall fii rek laa ko tuddee ndax diggante Baraka ak fii ñëpp xam nañ ne titre foncier président Macky kon rawatina bi nga xamee ne yéene président Macky Sall. mooy képp koo xam ne yaa ngi jug di liggéey koom ci réew mi ak foo nekk et ndimbalu état fekk la fa moo tax mu dénk ma économie sociale et solidaire kon yéen maay seen ministre waa marché Baraka maay seen ministre lii ñu tàmbali fasante la liggéey bi ña koy mottalee ci mairie ba maa ko wax te bés bu ñu nekkee ci mairie bi Rose mi day ñëw nekk ak ñun foofu lépp lu jëm ci taxawal marché bi ñu defaraat ko ñu àndandoon ko liggéey amul lenn luñ fi def loo xam ne duñ ko def en harmonie en concertation Thank you.